inédit. Ouais. C'est inédit ce qui se passe aujourd'hui entre la Sénat la justice la DGE la c'est inédit honnêtement man gisuma Macky avec ses réalisations lu ñuy ragal. maintenant l'autre chose l'autre chose. lu ñuy ragal mooy lan on peut laisser jëm. cest dire que au-delà de su tey Amadou Ba wóolu na boppam wóolu na ay. réalisation wóolu na bilan jàkk ji nañu ubbi jàkk ji rek ku bëgg a nodd nodd. maintenant ce qu'on veut dire mooy que un Sonko sans sans sans a ce sera un gâchis énorme ndax lan parce que c'est des milliers des millions de jeunes ñoo ko ñoo ko yaakaar comme ni ñu yaakaaree ñeneen c'est des millions de jeunes ñoo cristalliser seen espoir ci moom mhm. ndax da koy dina ko mot wala du ko mot mais c'est c'est pourquoi nous Ousmane Sonko c'est pourquoi nous nous moom euh, voilà maanaam ko condamné du ay mbir yoo xam ne xëy na war na mën a tax nit bañ a bokk élection présidentielle mais c'est pourquoi nous ay diffamation yoon yoon loolu pour demander solennellement à ce que les élections soient repoussées. ah pour deux ans. et Macky Sall continuer exercer le pour pour deux ans le temps qu'on termine toutes ces procédures judiciaires là. dugalal war a mën bokk bokk. c'est-à-dire ñun c'est ça notre. conviction lu ne xaj na ci ah. mais c'est ça notre conviction Macky ça dire que dañuy gis débat bi tey les Sénégalais le disent les gens te disent non nañ dem élection mais honnêtement. xam nañu qui se passe au niveau de la DGE. E. Mhm. ça c'est inédit. c'est des choses qui doivent être réglées mhm. tey soo demee le processus électoral déjà est entaché. avec ces histoires là tey ñii ils brandissent leur leur qu'est-ce que la cour de la CEDEAO va dire. si demain la cour de la CEDEAO donne raison aux avocats d'Ousmane mhm. suprême va sortir boobu ñu naan non bokkutul. ñu hmm. fiches ñu joxe ku ñeneen. on va vers des élections yoo xam ne ce seront des élections biaisées en tout cas nous ce que nous nous disons et nous le réclamons et nous le demandons solennellement et ça on interpelle tous les leaders de la société civile mu ñoom Alioune ñoom Birahim Seck tous les grands leaders de la société civile ils doivent surfer dans ce domaine là. mais yéen société civile l'histoire des calendriers républicains c'est bien mais consensus national moo ëpp calendrier républicain. tey on a besoin de la de la paix. xam nga tey ñu ngi ñëpp ngi noppi dëkk baa ngi ne tekk tekkaaral. demain on peut sortir Ousmane des des élections des des listes on va vers des élections luy xew. kenn xamu ko mm-hmm. yàlla rek xam kenn xamu ko une petite étincelle peut mettre la le, le feu mm-hmm. kenn ñaanu ko yàlla. Mm-hmm. cest dire que Ousmane il est sous le coup des procédures judiciaires ça dañ ko ko dañ koy nangu moom la mais ñun dañu autant c'est quelqu'un qui cristallise des millions de Sénégalais comme ni ko di cristalliser donc pour un processus électoral pour une élection inclusive bu jaar yoon et que les gens soient prêts mu bañ a am les gens se regardent en chair de faïence mu bañ am xel bu tey mais tey su ñu demee élection comme ça à ce rythme là mais la majorité des Sénégalais vont dire que dañu dañ dañ ko. dañoo détourné même suffrage. et man li ma gëm. Mm-hmm. tey c'est c'est c'est rien ne s'y oppose mm-hmm. la le seul argument bi ñu lay wax non respectons le calendrier républicain ça c'est le consensus national est au-dessus de ça nañu dem reporter ces élections pendant deux ans qu'on termine toutes ces procédures judiciaires là que le Sénégal reprenne son souffle reprenne la paix ñi ñu xoolante dem élection bu Sénégalais wóolu ñu jox mu dem yoonam